bànneex rek wax Serigne Sall. Hmm. léegi daal xam nañ ko ci ak xam ne ne maanaam lépp lu ñuy def maanaam du pertement rek. Hmm. parce liggéey Serigne Sall moom. Hmm. mooy liggéey Serigne Touba. dëgg la liggéey Serigne Touba mooy liggéey yàlla. dëgg maanaam gën li ci def daal xeeb nañ ko wax Serigne Touba. dëgg yëg bi daal mooy maanaam Fall bànneex li ñuy def ab coono la waaye coono bànneex. coono bànneex wax Serigne Touba. mën nga ñu tënkal si ñaari baat loolu Serigne Touba defal. Eh, lu fal lu lu rena te. Lu ke mun ma kaw. Arkite ya. Ndax dañu dañoo nekkoon ay tout tànk yu bon yoo xamante ne fa. Di waajur sax mu ñu xool si suñu lenn. Waaye jëmmi xaste yi. Te xaste yi bu naan xaste moom xam ne ne ku tedd ki da koy bind xaste. Dëgg la. Moom moo ñu def nii ñu mel. Ba ñu am fit naan dañuy topp xel comme naan dañuy xil ma. nag ak yeneen ak yeneen di kuréel ak yu jawee. dëgg la kay kon Serigne Touba moo ma defar man mii moo a defar ba man mii ngay gis nii day mel ni existé wu ma. Hmm. ay pion laa rek boo xamante ne moom moo koy doxal lu ko neexee. dëgg la waaw jaajëf